salaam gars yi na ngeen def waaye maa ngi leen di nuyu di leen ziar euh, show bi maa ngi koy seetaanee aux États-Unis euh, dégg ay commentaires yu bari yu ñu wax ci affaire laal la euh, naan dafay dof-doflu moi je crois pas day dof-doflu laal la dafa am choc parce que comme Cheikh def ko ne woon def te moom bu muy laata xam. diggante ak Mariam yàggul ndeke ñoom yàgg nañu sëy yàgg nañu ànd te euh, mais euh, Cheikh da ko doon fenal léegi nag moom bi mu demee ba mu commencé remarqué ne entre Cheikh ak Mariam am na lu nekk seen diggante ci la yàggul so ci diggante bi bu ko Cheikh bu ko bi mu waxee Cheikh ne yow yoo xam nga ne moos saxel xel may loo nga takk Mariam mu ne ko dinaa ko takk parce que dama ko bëgg mais jëli ko au sérieux quoi Euh, moo dafa mel nii rek comme nit kuy dox rek ku nekk jéej nga fay bay génn si ndox mi vague ñëw sa ginaar rek jël la gàddu la tu vois noonu la ko choc bi jëlee man je crois pas que moom dafay dof doflo non là je le crois lu la jekku rek gañe la moo ko dal boo ko xoolee bu baax nga xam ne dof doflowul bu dee dof doflu itam rôle boobu la war a jouer moom la jouer waaw léegi Cheikh moo ko tey parce que moom xam na Marème euh, euh, Lalla nu mu ko bëggee ak euh, fu mu tolloog moom ak ni mu koy traité ak ni muy waxeek moom bañ na ko sax ba di ko àjjana nga xam ne war na koo bëgg Cheikh Marème Lalla bàyyilu ko dara defal na ko lépp lu mu bëgg ci kër solal na ko dundal na ko lu nekk defal na ko ko soo Cheikh bu demee bay takk beneen jabar war na sax toog waxtaan ak moom si njekk ak nga xamal ko ne dëgg la ba ma lay takk euh, malgré que dama takk pour ñaari wala ñetti jabar léegi daa vraiment gis na gis naa ku ma bëgg te moom laa bëgg a takk ñu waxaal si ba d'accord mais ni mu ko defee moo ñaaw choc boobu moo moo moo moo moo dal lal la euh, moo tax mu mel ni mu mel amin sama xalaat daal loolu la moom elle n'a pas fait déedéet teyu ko tey ko dof dof lool dof daf doflowul xam nga ne moos bu doon dof doflu duñ ko yóbbu opit duñ ko yóbbu si fañ koy fajee mu bàyyi doomam kër ga te mu ne fa boo ko xoolee rek nga xam ne dof doflowul tu vois man je crois pas parce que mareem itam moo ko tey mareem jëkkër ki jëkkër jabar jàngoor jëkkër jàmboor la tu vois mu ciy dugg di lekk cheikh lu nekk mu wax loo ko cheikh daal di jël numéro mareem def ci Mamadou mécanicien léegi bu wootee bu ko laal laajee kooku kan la mu ne sama mécanicien bi dafa ma sonal dugg na fi génn na fi te fekk du dëgg cheikh nag loolu yëpp moo ko def mareem daal laal la lii yëpp cheikh moo ko ko yóbbee cheikh daal lu mu ci gar góob ko yow xam nga ne moos sa jabar attanul ñaari jabar waaw bi mu xamee ne foofu la ko toll parce que laal la waxoon am na fu mu ko waxee ne bu fekkee ne dangaa bëgg a takk mareem nga may ma sama baat dem wooy sama mbokk ñu ñëw toog léegi may ma la nga dem dem mu dem di takk keroog te keroog bu muy takki jabar waxul waxul ma waxul laal la si dafay takki jabar dafa génn comme kuy liggéey rek ci biir liggéey boobu liggéey boobu ci la demee takk bareem ñu def seen réception def lépp tu vois ci di boo seetloo sax ci biir réception yi laal def ko ne ko ana nga maa ngi lay xaar reer yow pare naa yow lay xaar guddee nga mu ne ko maa ngi ci yoon bi te fekk mu ngi si réception bi heureusement lal la bu mu muusee moom cheikh bu mu egsee kër ga daal la xoor yére yu mu sol mu wóor ko ne yére yi moom xamul fan la ko jëlee dem àndul ak moom ci tailleur mu ñawal ko ko te moom ñawal ko ko parce que yére yi muy sol yëpp moom laal la moo ko koy ñawal ku xam sa jëkkër boo gisee lu mu sol bu ko moomee war nga ko xam bu dee lu bees lu mu jënd war nga ko xam ki la ko forcé mu ne ko cheikh lii foo ko jëlee di ko forcé di ko forcé mu ne ko damaa takk marem vraiment loolu dafa metti dafa metti du bopp yëpp attan lu metti am na metti ci yoo xam ne saa waay ko ko ku ñu ko teg rek day deme nii laal la demee waaw ngeen jéggal ma loolu mooy sama xalaat daal ok jërëjëf. man daal yéen yéen question yi ngeen di posé euh, euh, réponse yi ngeen di réponse mbiru làll bi man def ma jaaxal yéen waa Sénégal ku si jóg mu ne waaw làll dafay dof dof làll dof dof loolu de. billaahi laal la dof dof lool effectivement parce que cheikh ni mu ko defee moo dul noonu man dama yaakaar ne cheikh bu toogoon ak laal la waxtaan ak moom dinañu mujjee juboo ci kàddu parce que ñoom si ñëw ñu monogame sow am na droit takk ba ñeenti jabar mais bu toogoon waxtaan ak laal la waxtaanee ko lu yàgg mu yàgg-yàgg yàlla dina si mujjee noonu nañu si mujjee d'accord parce que si ñëw ñu benn jabar effectivement mais cheikh ni mu ko defee moo ni mu ko defee moo bon parce que moom da daan indi euh, da daan indi euh, euh, kii marem ci biir kër ga ci kaw lalu laal loolu defa ñaaw Cheikh ni mu ko defee moo ñaaw ba pare fu mu toll la kii amul toroxal buñ ko toroxalul marem amul toroxal bu mu ko toroxal mais fu mu toll mu ngi koy jëndal oto mu ngi koy jëndal ay ay ay ay ay ay présent mu ngi koy jëndal fleur fu mu munta toll lu Mariam bëgg loolu la bëgg tu vois te lalla nekk kër ga di ko liggéeyal ci kër ga yore ko doom doomam di ko toppatoo tu vois Cheikh daal moo def lépp digganteem sax man bu sax ak lal ak kii ak Mariam bu yàqoo sax man man man san ma di absolument rien parce que ñoom ñaar dañ ko defee noonu def moo ñaaw surtout moom Euh, spécialement moom Cheikh Cheikh mi en tant que góor ni mu defee làll defa ñaaw torop lii chock la choc boo xam ne ma euh, làll mu ko yéeg ak Cheikh bu muy takk Marème benn la choc la man xawma comprendre ma lu tax ñu ci ñu ci bari ñi woote ñi naan làll dafay dof dof lu làll dof dof lool ndaw soosu dëkk nekkoon France moo jëkkër gi te jëkkër gi takkoon jabar te yëgu ko dégg ngeen lu mu leen wax loolu ku ku ko wax dala dalul mais man mi musuma dal te ñaanuma yàlla mu dal ma mais laal la dof dof lool dof dof lool de billaay li muy def tayu ko tayu ko ok